Serigne Alamine Niang Serigne Alamine Niang mi ngi feeñ jamono ci atum 1853 ci dëkk bu ñuy wax ñangeen ñangeen mi ngi ci wetu dëkk bi nag di Péew Faal ci région de Diourbel dëkk boobu nag la Serigne Alamine Niang feeñee jamono ci atum 1853 di doomu soxna Fatim Kebe ak ku ñuy wax sëriñ Malick soxna Niang Serigne Alamine ñan nag am na nag ñu bokkal waajur wu jigéen ñu mën cee ràññee ku ñuy wax soxna Mati Niang bintu soxna Fatim Kebe bintu Serigne maalik soxna Niang ak moom Serigne Alamine Niang ibnu soxna Fatim Kebe ibnu Serigne Malick soxna soxna ñang sëriñ Xalemin ñang kenn rek la bokkal waajur wu góor ak waajur wu jigéen muy soxna mati ñang mii soxna mati ñang mii nag moo meññ ku ñuy wax soxna assuloo soxna assuloo nag mooy maami àlla siisee mi nekk nag ci Tuubaa daaru marnaan sëriñ Xalemin ñang nag bi matee dal alxuraanul karim waajuroom wa sëriñ maali soxna ñang nag moo ko jàngal alxuraanul karim ba mu géeju lool nag ci wàllu alxuraanul karim ginnaaw bi nag lañ ko yóbbu nag ci dëkk bu ñuy wax ngéey ngéey ngir mu jàng fa nag xam-xam ginnaaw bu mu jógee nag ci dëkk boobu nag di ngéey ngéey ba jàng fa nag lim doon sàkku nag di xam-xam ba noppi dafa dafa dellusiwaat nag ci dëkk bi mu feeñe jamono nag di ñangeen booba itam nag fekk na waajuram wi nga xam ne moom moo ko meññ di sëriñ Maalik Soxna Ñang génn àdduna rakki waajuram di sëriñ Maxtaar Ñang nag la fa nekkaloon ci dëkk boobu nag di ñangeen di dëkk bi mu feeñe jamono mu taxawal fa nag daaray alxuraan doomu soxna jooj ñu nekkoon nag moom moo tax nag bi mu dellusiwaatee ci dëkkub cosaanam boobu nag di ñangeen mu taxawal fa daaray alxuraan nag di jàng ak di jàngale nekk itam nag ci ron rakki waajuram wi di sëriñ Maxtaar Ñang ci dëkk boobu nag di ñangeen la ko magi doomi baayam bii nag jëlsee di soxna soxna Mariama Ñang booba nag soxna Mariama Ñang nag mi ngi ci dëkk bi nag di Tuube Jéey Tuube Jéey nag mi ngi ci wetu dëkkub Mamor Anta Sali Mbàkke bi ñuy wax Mbàkke Kajoor ñu wax leen sax lan moo tax mu fekki magam ji nag di doomi baayam di soxna Mariam Ñang ginnaaw bu waajuram génnee àdduna di sëriñ Maalik soxna Ñang booba sëriñ Alamin Ñang mi itam nekkul mag soxna Mariam Ñang mi itam nag dafa nekkoon ko am barke suñ boroom itam nag dénku ko lii di alali àdduna moo xam ci wàllu jur te booba itam nag juboo woon naag rakkam ji nag di sëriñ Alamin Ñang loolu itam nag tax na sëriñ Alamin Ñang nag fekki ko di tuubee jéey mu wéy nag nekk nag ci loxoy soxna Mariam Ñang nag def ko mag soxna Mariam Ñang itam nag def ko rakk ba ni sëriñ Xaadim Rasuul wootee nag ci dëkk bii nag di Mbàkke Kajoor bi sëriñ Tuubaa Seexul Xaadim wootee nag ci dëkk bii nag di Mbàkke Kajoor fekkoon na jàmbaar yi ku baax ki sëriñ Tuubaa Cheikh Ibrahima Fall Lamp Baabul Muridiina nag jaayante ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul googu maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Baabul Muridiina jaayante woon nag ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul fekk si maam Cheikh Ibrahima Fall ci jaayanteeg ku baax ki sëriñ Touba Rasuul nekkum murit ginnaaw ba mu nekkee murit nag ku baax ki sëriñ Touba Xaadim Rasuul ci addiye yi nga xam ne nii soxna Mariam Ñang nag daana ko ko yit tax na itim nag ku baax ki sëriñ Touba Xaadim Rasuul gërëmoon soxna Mariam Ñang ci bi mu koy yeewi di ko wax ne da ngay jigéen nag moo tax waaye soo nekkoon góor ma jox la nag cër bi ma jox góor ñi bu fekkee ne nag am nga kenn koo xam ne nii nag mën naa ñëw ci ñi la jege ma defal ko nag li ma defal xaadim rasul di ko wax ne am naa rakk doomu baay bu fa nekk bu ñuy wax sëriñ alamin ñang te déggal na ma su ma demee nag su ma waxtaanee ak moom dana nangoo ñëw nag ci yow ginnaaw bu soxna Marema ñang jógee Mbàkke Kajoor ñëw nag ci dëkk bi nag di Tuube Jéey moom soxna Marema ñang daa jóge Tuube Jéey nag ñëw nag ci dëkkub cosaanub sëriñ alamin ñang bii nag di ñangeen doon wax nag sëriñ alamin ñan ku baax ki sëriñ Tuubaa xaadim rasul laa doon waxtaanal mu doon ma xamal ne daal bu fekkee ne am nga kenn daal ku la déggal ci say càmmiñ nga indil ma ko ma defal ko li ma nag nga ñëw nag ñu dem nag ci ku baax ki sëriñ tubaa xaadim rasuul wax naa ko ne àllamin ñang ku ma déggal la te sama rakk la soxna mariama ñang nag di ci tegal nag sëriñ àllamin ñang di ko wax ne nag kooku ma lay waaj a yabal mat nab sëriñ mat nab rayukaay ginnaaw bu soxna mariama ñang nag waxee lool nag sëriñ àllamin ñang sëriñ àllamin ñang ñëw na mbàkke kajoor jaayante ku baax ki sëriñ tubaa xaadim rasuul ci ndigalul magam nag soxna mariama ñang kon lii moo indi nag sëriñ àllamin ñang nag ci yoon wi mu dëkk boobu nag di mbàkke kajoor mu wéyee nag nekk ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul ci dëkk boobu nag di Mbàkke Kajoor ba ni sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul bàyyi ko nag ci dëkk boobu nag di Mbàkke Kajoor ñëw nag ci dëkk bii nag di Mbàkke Bawal ginnaaw Mbàkke Bawal nag Daaru Salaam ginnaaw Daaru Salaam Tuubaa loolu lépp itam na sëriñ Alamin ñan nag mi ngi ànd ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul nekk nag ab taalibe nag bu dëggal nag ci ginnaaw ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul ba ni sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul nag gërëmee mag ñi ci ngërëm loola itam nag ci la bokkoon muy ngërëm li Seexul Xaadim gërëmoon Maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Baabul Muridiina Cheikh Ibrahima Sarr Njaañ sëriñ Ndaam Abdourahmane Lo Cheikh Massamba Diop Saam ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ngërëm loolu Seexul Xaddiim gërëmoon mag ñi ngërëm loolu itam nag ci la sëriñ Xalamine Ñang nag jote woon ngërëmam mu delluwaat nag ci loxoy soxna Mariama Ñang mi ko boole woo ak ku baax ke sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul ci dëkk bi nag di Tuubee jéy nekk itam nag ci wetu dëkk bi nag di Mbàkke Kajoor ñu njëkk a jaayanteeg moom itam ci dëkk boobu nag di Tuubee jéy itam nag lañ jaayanteeg moom ñooñu itam nag dafa fekk itam ñu nekk nag ci loxoy soxna Mariama Ñang mi magam ginnaaw bu sëriñ Xalamine Ñang ñëwee Mariama Ñang nag booleeg sëriñ Xalamin Ñang ngir ñu jaayanteeg sëriñ Xalamin Ñang ñu mënoon caa ràññee ku ñuy wax sëriñ Ngaari Si mënoon caa ràññee ku ñuy wax sëriñ Sayer Kebe ak sëriñ njëkk a am nag ci ay taalibe mu wéy nag des nag ci dëkk boobu nag di tuube jéey ci loxoy magam nag soxna Mariama Ñang waaye diir bu néew itam nag la def nag ci loxoy magam soxna Mariama Ñang bàyyi koo fa dem fekki nag magi doomi ndayam ju ñuy wax sëriñ Moor Jaañ ci dëkk bu ñuy wax Yajiñ Jaañ ginnaaw bu mu demee ci dëkk boobu nag di Yajiñ Jaañ diir bu néew nag la fa def bàyyi koo fa nag delluwaat nag ci dëkk bi mu feeñee jamono nag di ñangeen nekk itam nag ci wetu suuf si nag di péew faal ginnaaw ba mu delloo ci dëkkub cosaanam di dëkk boo xam ne nii fa la feeñee jamono di ñangeen nekk ci wetu bi nag di péew faal fekki fa nag rakki baayam bi ñuy wax sëriñ maxtaar ñang mu wéy nag nekk nag ci dëkk boobu nag di ñangeen mbooloo mi koy yaakaar ngir xaadim rasool nag tàmbalee yokk nag mu demitim nag ba xajatul nag ci dëkk boobu nag di ñangeen ginnaaw bi nag la bàyyi koo ñangeen la dem na kër saala faal fekk fa nag sëriñ saala faal ci bagage yooyu nag mu yan woon wala nag ci bagage yooyu nag mu yoroon mi ngi koy xamal ne yanu say néeg nag te xamoo foo jëm itam metti na kon wàccal fii nag sa néegi maag yow nag ñu ànd nag fas yéene wut nag foo nekk ñoom ñaar nag bi ñu àndee nag lañ dem seeti nag sëriñ mbay tiir dëkk boobu nag di kër mbay tiir ginnaaw buñu eggee ñoom ñaar nag ci sëriñ mbay tiir nag mi ngi leen doon xamal ne moom daal lim yor ci suufa sëriñ xàllamin ñang mi nag mënu fee dëkk waaye nag dana ànd ak ñoom ñaar ñu ànd itim nag toppaat suuf si ngir fas yéene wutal suuf nag sëriñ xàllamin ñang ci lañ ànde nag ñoom ñett muy sëriñ saala sëriñ xàllamin ñang ak sëriñ mbay Abdoulaye Tir Ndiaye ci lañ demee nag ci dëkk bu ñuy wax kër mbàcc fekk fa nag sëriñ mbàcc sëriñ mbàcc mii nag ngi ko gënoon a xam nag ci sëriñ ñoxor ngom ginnaaw bu ñu xamalee seen bëgg-bëgg boobu nag sëriñ ñoxor ngom sëriñ ñoxor ngom itam nag dajale woon na waa dëkk ba di leen xamal ne sëriñ Alamin Ñang mii dafee ñëwoon doon wax ne nag dafa soxla suufa waa dëkk ba nag joxoon nañ seen kàddu nag sëriñ mbàcc di ko wax ne ñu de ay sàmm lañ bu fekkee nag sëriñ Alamin Ñang mii nag mën nañoo bënn lub teen boo xam ne nii suñ jur a naan ñu mën koo jox nag suufa sëriñ Alamin Ñang itam gu waa mbàcc boobu ñu mujj ko jox suuf nag ca tund wa suuf soosu nag mooy dëkk bi mu sanc di daaru ñang ñu gën koo xam ci kër àlla ci dëkk boobu itam nag la nekk ba nim génnee àdduna ci atum 1919 ci dëkk boobu itam nag lañ ko jébbal boroomam waa tund woowu ko joxoon suuf si itam nag mujj nañoo jaayanteeg moom ngir sëriñ Tuubaa xaadim rasuul ak nekkinug dëgg nag bu fa sëriñ Alamin Ñang nekkoon teen boobu nag ñu ko doon xamal ne nag ñoom bëggoon nañ nag sëriñ Alamin Ñang bënn ko fa teen ba itam nag ba nëgëni itam ma ngi ca dëkk ba waaye jamono ci njabootu sëriñ Xalla ñan Ñang di ay sëtam fas yéene nañoo sekkartiwaat teen ba teen ba itim nag ku baax ki sëriñ Tubaa Xaadim Rasuul da caa ñaanoon ca ndox ma teenu barkeelu la mu wéy nag nekk nag ci dëkk boobu mu sanc di daaru ñang ñu gën koo xam ci kër àlla di dundal nag ndigalul ku baax ki sëriñ Tubaa Xaadim Rasuul di tarbiyee nag mbooloo mi koy yaakaar ngir ku baax ki Xaadim Rasuul nekk itim nag murit bu dëggal itim nag ci ginnaaw ku baax ki sëriñ Tubaa Xaadim Rasuul bokk itim nag ci muriti seexul xaddim yi am wërsëg képp koo xam ne nii murit nga itim nag naaw nga ko moom sëriñ Xalla Min moo xam ci joxe wërsëgam moo xam ci ak taalibeem ak nangoo topp nag ci ku baax ki sëriñ Tuubaa xaadim rasuul képp itam nag kum bokkal ëttub seexul xadim bi mu def la nawle doomu seexul xadim yi itam nag mu def leen ab sëriñ rakki seexul xadim yi itam nag kasaalika ñu takkoo takkoo takku itam nag ci njabootu ku baax ki sëriñ Tuubaa xaadim rasuul tudde na leen doom moo xam ñu jigéen ñi wala ñu góor ñi rakki seexul xadim yi wala mag ñi toppoon seexul xadim itam nag ñu ci bari itam nag tudde na leen doom ba ci soxna yi seexul xadim dëkkoo woon kon sëriñ Alamin Ñaŋ nag nekk nag murid boo xam ne ni fab na léppam jébbal seexul xaddim murit googu mu nekkoon fab léppam jébbal seexul xaddim tax na itam nag daana liggéeyal seexul xaddim lu takkoo takkoo takku ñu man cee ràññee nag addiyey matt nag jum sa soo woon nag ak seexul xaddim lii di lem itam nag daana ko indil ku baax ki sëriñ Tuubaa xaadim rasuul lem gi nag mi ngi daa jóge ci dëkk bu ñuy wax mbajaan ab taalibeem moo fa nekkoon mbajaan nag mi ngi ci wetu mbuur ko daa indil sëriñ Alamin ñang mu fab ko nag yit ko ku baax ki sëriñ Tuubaa xaadim rasuul boole ko nag mbooloo moomu topp ci ginnaaw moom di liggéey ngir xaadim rasuul lépp lu masaa ñore nag ci tool yi kam yaakaar nag la koy yit di seexul xaadim ba tax na itam nag sëriñ Alamin Ñaŋ itam nag bokkoon na ci jàmbaari sës rëkk nag ci ku baax ki sëriñ Tuubaa xaadim rasuul mu féetee itam nag ci jàng ak jàngale mu nekk itam nag ku jaxasoo ak mag ñi toppoon ku baax ki sëriñ Tuubaa xaadim rasuul ñu man cee ràññee maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru dëkkoo sëriñ Alamin ñuy wax soxna Anta Ñang soxna Anta Ñang moom am na ak njaboot ak maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru ñu mën cee ràññe sëriñ Basiiru Mbàkke moom maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru ñu koy dàkkante la sëriñ Basiiru Mbàkke Anta Ñang ba tayit ko lëre gim séqoon ak maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru moom sëriñ Alamin Ñang doomu maam Ceerno Ibrahima na ne na ci jotaay maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru di wax ne sëriñ Alamin Ñang boroom mi may ndax ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul daan mën a wax ne sëriñ Xalle min ñang ci pays suñ boroomi pays boo ci masaa na fa ba tey nag ci relation yim amoon ak mag ñi ku jaxasoo woon ak sëriñ Masamba Kandi Bousso la mook sëriñ Masamba nañ lu baree baree baree baree bari ndaxu kóllëre moo xam ci ay lettre moo xam ci seetante loolu itam nag tax na nag kii di sëriñ Masamba Kandi Bousso bind na ay lettre yu takkoo takkoo takku sëriñ Xalle min ñang lettre a dégtal nag te sëriñ Masamba Kandi Bousso nag bindoon ko sëriñ Xalle min ñang soo demee nag ci tàmbalib lettre ba sëriñ Masamba Kandi Bousso nag ngay wax ne ku ñuy wax sëriñ Masamba Bousso nag moo la ko bind ñu gën koo xam ci sëriñ sàmba Kande Bousso lettre bi nag maa ngi ko jëmale ci sama xarit sama soppe sama wóllëre sëriñ Alamin ñan lettre bi nag bi ma la koy bind maa ngi yendu nag ci sama kër soppe sëriñ Balla Faali Jeng maa ngi lay xamal ne su ma jógee nag fii ci kër sëriñ Balla Faali Jeng ci yow nag laa jëm si ñëw googu may ñëw ci yow nag li ma ci jublu mooy ziyaare si la dong ak nag jokku mbokk nag ak wóllëre gi ñu am te yàlla rek tax sa boobu nag di soxna Mareem nuyul ak mbooleem njaboot gi loolu nag lettre bi sëriñ Massamba Kandé Bousso bindoon sëriñ Harlamine Niang di ko wax ne nag maa ngi yendu nag kër sëñ Balla Faali Dieng te su ma fi jógee danaa ñëw nag ci yow seet si la asalaamaaleykum amma baadu fa min ibni cheikhihi Massamba almaaruf bi kanni ibnu Mouhamadul Bousso bi alqadri yi nasaban salaamun taam wa ikraamun am yushayyihuhu tawkiidu hahdin wa taalimin ila xalilihi wa habibihi wa anisihi Cheikh Aliou Niang mujibuhu ilaamuka bi anni xiltul yawma daara sëriñ Balla Faali Dieng wa aruhu insha allahu taala mahal ayaali ilayka siyaaratan wasilati rahimin lillahi wa rasuli wa uballigu salaami ila soxna maram wa ayaalu turan wasalaamu aleykum sëriñ Masamba Kanni sëriñ Masamba Kanni bu seytim nag bindaatoon na baneen lettre sëriñ Alamin Ñang soo delloo nag ci lettre bi mu bindaatoon sëriñ Alamin Ñang mi ngi koy wax ne nag maa lay nuyu nuyu boo xam ne nii nag nuyu féetewu ko kaw maa lay teral nag teraanga joo xam ne itim nag teraanga féetewu ko kaw di ci boole ak cofeel ak ak ngërëm loo xam ne ne nag anut benn mere ndax nit ki mënoo koo gërëm ba pare nag di ko mere ku koo bañ ku xas yaakaar nit itim nag mënatoo yokkat ci moom lettre bi nag maa ngi ko jëme ci sama mbokk moo xam ne nii dañoo bokk nag ngir yàlla bokkaat itim nag ngir sëriñ bi koo xam ne nii nag dafa wëlbatiku nekk sama mbokk sama xarit sama wéttal nekki nag sama wéttalu xol nekk nag sang bu màgg a màgg nekki nag sang bu am yërmande nekk itim nag sang bu mën a faj ay aajo nekk it nag ku am xam-xam nekk itim nag ku xelu nekk nag ku siiw li ko ñëpp siiwee nag mooy ak mbaax akuk yiw akuk lislaam nag gu ànd akuk nekk nag sëriñ Mouhamed Lamine Niang di murit saadeex nag di murit bu dëggal nekk itam nag murit bu ñëpp dëggal mu nekk murit boo xam ne nag ñëpp ko jiital mu nekk itam nag ko jiitu nekk itam nag ko am ngërëm fu mu jëlee ngërëm nag ci ñi sant Mbàkke te itam nag ñi Mbàkke nag ñoom la yàlla jiital yàlla na yàlla dolli ngërëm nag suñu yonent te dolli ngërëm itam nag Sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim lettre bi nag li taxoon ma bind ko mooy xéer gu ma xéer ci yow di la xamal ne nag maa ngi ci jàmm mën naa am itam nag yow itam yaa ngi ci jàmm nag ma nuyul njaboot gépp nag rawatina nag sa mbokk mu jigéen mi nag di soxna Mariama Ñang ci bind lettre bi mu ndaw lettre bi nag maa ngi ko bind bisub dimanche ñaari fan nag ci weeru baraxlu ñu teewlu nag lettre bi sëriñ Massamba Kande bu sa bindaatoon nag sëriñ Alamin Ñang ngiru kóllëre nag guñ séq ñoom ñaar li annahu minni salaamun laa salaama fawqahu wa ikraamun laa ikraama fawqahu wa yusayyihuma ridaun wa xubbun wa raja wala suxta baada ridan wala buxda baada xubbin wala malala baada rajain ilaa aqi fi llahi taala wa fi jihati cheikhi wa xibbi wa killi wa rafiqi wa shafiqi wa anisi qalbi sayidi al buubayil jahjah zi rahmati zi qadayi xaagiti al adibi al السيد الشاهر المشهور بالخير والإكرام والإسلام والإحسان بعد الإيمان الصالح المصلح الشيخ الأمين يعني المريد الصادق المصدق المقدم المبارك سر الرضا بلا سخط عند البكيين المقدمين المكرمين السالكين في حضرة الله تبارك وحضرة وسيلتهم عليهم رضا الله والرسول على وسيلتهم غير الصلاة والسلام فاعلم فما موجب هذه البراوة إلا السلام مني إليك لحرص إليك بأني على خير وعافية ولعلك وجميع عيالك كذلك أم لا أبلغ سلامي وحبي وإكرامي إلى الأخت المرضية almadinati almukarrama soxna Marème Niang waylaaji min xiyaalikuma katabahu muhibuka masamba busa alsaxir alfaqiru alxaqiru daif bi yemil ahadi awali saban min ayi bak sasin ba tey ci kóllëre gu sëriñ Xallamin Niang séqoo nag sëriñ Masamba Kandi Buso sëriñ Masamba Kandi Buso itam bindaatoon na baneen lettre sëriñ Xallamin Niang soo delloo nag ci ñetteelu sëriñ Masamba Kandi Buso bind sëriñ koy wax ne doomu nijaayu sëriñam nag moo lay nuyu di sëriñ Ahmadu Mbusoo Béew maa ngi lay nuyu nag nuyu bu sell nuyu nag bu ànd ak ngërëm ngërëm loo xam ne nii nag mere munu ci cee toppaat ak kóllëre goo xam ne ni nag maa ngi ko jëme ci yow yow mi wooyee sëriñ Alamine Niang yow mi nga xam ne nii nag góor yàlla yëpp itim na gërëm nañ la wala nit ñu baax ñëpp itim na gërëm nañ la maa ngi lay xamal ne daal man maa ngi ci jàmm maa ngi ci yiw yow itim nag xam naa ne yaa ngi ciy jàmm yaa ngi ciy yiw waaye xalaa budda daal xamal ma ci lan nga nekk saa su ne daal na la leer ne man sëriñ Massamba Kandi Bousso yaa ngi ci sama xol yaa ñi nga xam ne ni nag yéen a nekk ci waxtu wu ne ak saa su ne yàlla nag bu leen dañ nag di am ngërëmul yàlla ak ngërëmul ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim sëriñ mati jébbal naa ko ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul ak yeneeni wax nag yu ma boole ñu teelu nag ñetteelu lettre nag bu sëriñ Masamba Kandi Buso bindoon sëriñ Alamin Ñang ginnaaw bu ko nuyoo nag ngir cofeel di ko yëgal nag doomam nag jum jébbal sëriñ Tuubaa Seexul Xaadim amma baxdu fa min ibni xaali cheikhihi ibnu Muhammad ibnu Muhammad al busuubi yi alqaadiri yi nasaban aska salaam wa aska tahiya yushayyihuhuma ridan la suxta baadahu wa tawkiidu haadin ila الدنيا ولعلكم كذلك أملا صواب هذا ذلك فأيخن بأنك تكون في قلبي مهما هندك كل ساعة ولا تسال أبدا في رضا الله تعالى ورسوله وفي أكبر رضا الشيخ أحمد المكي في الدنيا والآخرة آمين يا رب العالمين صواب هذا ذلك أعلمك بأن ابننا سرين متي أطلقته لحضرة الشيخ سلمان مع براوتي وأقوالي سيدنا مسامبا Kande ginnaaw jaxasoo googu mu jaxasoo woon ak Serigne Massamba Kande Bousso moom Serigne Halamine Niang kii di Serigne Mouhamadou Lamine Gueye ku jaxasoo woon ak Serigne Halamine Niang la ba tax na Serigne Mouhamadou Lamine Gueye tudde woon na doom Serigne Halamine Niang Serigne Halamine Niang itam nag tudde woon na doom sëriñ Moodu Lamin Gay maam Cheikh Ibrahima Fall lamp baabul muridiina dëkkoo woon nag doomu soxna Mariama Ñang jigéenub sëriñ xa Lamin Ñang la muy soxna wali mati mbay soxna wali mati mbay mii nag am nag njaboot ak maam Cheikh Ibrahima Fall lamp baabul muridiina ñu mën cee ràññee soxna ummi Fall soxna ummi xayri Fall soxna Mariama Fall ak sëriñ Mouhamadou Yaddaali Fall ginnaaw bu mu bàyyi koo nag ci loxoy maam Cheikh Ibrahima Fall lamp baabul ba tax na itam nag am na ci njaboot ñu mën cee ràññee sëriñ Cheikh Ñang Basiiru Ñang soxna Assu Gaawaan Ñang ak sëriñ Maalik soxna Ñang mam faye woon waajuróomam wa ba tey ci relation yi sëriñ Alamin Ñang amoon nag mag ñi ñu mën cee ràññee digganteem ak Cheikh Massamba Mbàkke ibnu Maamoor Anta Sali Mbàkke ñoom ñaaritim nag ñu jaxasoo woon lañ ba tax na bi sëriñ Alamin Ñang génnee àdduna bi sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim di séddale njabootu sëriñ Alamin Ñang gi soxna May Jaxate mi sëriñ Massamba Mbàkke la foboon doomu sëriñ Alamin Ñang bi mu faye woon soxna Assu Gaawaan jébbaloon ko ko ngir mu yar ko ko soxna May Jaxate yaree nag ba mata dem Masamba Mbàkke itam lañ ko joxoon ngir mu dëkkoo ko kon Cheikh Masamba Mbàkke itam nag dëkkoo woon nag doomu sëñ Alamin ñang buñ doon wax soxna Assu nag ku baax ki Sëriñ Tuubaa Rasuul ndax ñoom ñëpp kenn ku ne nag ku baax ki Sëriñ Tuubaa Rasuul rek nga doon xool nag ci sa moroom njabootu ku baax ki Sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul Sëriñ Alamin ñang nag ñu jaxasoo woon ak moom lañ kii di Cheikh Mamadul Moustapha Mbàkke Sëriñ Alamin ñang tudde woon na ko doom tudde woon na waajuram woowu doom di soxna Aminata Lo cheikh mamadul faadal mbàkke ibnu sëriñ tubaa xaadim rasuul ku jaxasoo woon nag sëriñ xalamin ñang la mook sëriñ xalamin ñang nag séq nañ lu takkoo takkoo takku seexul xaadim waxoon na soxna awa buso damaa bëgg nag nga def sëriñ xalamin ñang càmmiñ waxoon sëriñ xalamin ñang itam damaa bëggoon nga def soxna awa buso ab jigéen loolu itam nag taxoon na cheikh mamadul faadal mbàkke ak sëriñ xalamin ñang jaxasoo lool lool sëriñ xalamin ñang tudde na soxna awa buso doom tudde na itam nag cheikh mamadul faadal mbàkke doom cheikh mamadul faadal mbàkke itam nag xamoon na boobu bind na ay lettre lettre lettre nag sëriñ xalamin Niang lettre bi ñu leen di waaj a dégtal nag Cheikh Mamadou Fadal Mbacke moo ko bindoon Serigne Alamin Niang boo demee nag ci biir lettre bi Cheikh Mamadou Fadal Mbacke nag mi ngi wax Serigne Alamin Niang lettre bi nag li ko waral yow Serigne Alamin Niang yàlla na la yàlla barkeel ñu ñun ñëpp nag ci barkeb Serigne Touba Serigne Touba mi nga xam nii mooy sangub làkkat yi ak sangub araab dara nag waru lut ma bind la lettre bi lu laaj la sa jàmm ak sa jàmmi jigéen boobu nag di soxna Mariama Niang maa ngi lay xamal ne nag soxna Mariama Niang moom nag ma mujjee gisanteeg moom joxoon naa ko ak xasida nag ngir mu jox la ko ndax jot nga ci wala ci boo ci jotee itam nag dama laa bëgg a dolliwaat ganeen xasida na la leer naa nag duma la fàttee moom itam nag sa jigéen boobu nag duma ko fàtte inchaa allahu ci waxtu wu ne nag ak heure bu ne ñu teewlu nag lettre bu ma Cheikh Mamadou Fadal Mbacke bindoon sëriñ Alamin Ñang ngir nag ak xasida gum joxoon jigéenam soxna Mariama Ñang doon laaj sëriñ Alamin Ñang ba xam jot na ci xasida ga bu fekkee jot na ci xasida ga itam moom Cheikh Mamadou Fadal Mbacke nag am na yéene jébbalaat sëriñ Alamin Ñang ganeen xasida ñu teewlu ko asalaamaaleykum wa rahmatullah ikraamun taam wa salaamun aan ilaykum mujibu hasi bara wa ayuha cheikh Alamin Ñang barakallahu fiina wa fiika bi barakati cheikhana mbakki allasi saadal arba wal ajma illa suali an afiyatika wa afiyati uxtika mariam xayra anni jaaltu ala yadiha shay'an min al qasidati hal ballagat ala yadika am la fa in raayta fal yuqin bi anni aradtu an asidaka xayran insha allahu taala ayqin bi anni la ansaaka eh, anta wa hiya insha allahu bi kulli waxtin wa saatin wa salaami ila al muridina jamian wa ila al xiyaali jamian wa salaamu aleykum wa rahmatullah ginnaaw lettre boobu itam nag cheikh mamadul faadal mbàkke bindaatoon na baneen lettre sëriñ Alamin Ñang soo delloo nag ci ñaareelu lettre nag nag bu Cheikh Mamadou Fadal Mbacke bindoon sëriñ Alamin Niang ginnaaw ba mu nuyoo moom Cheikh Mamadou Fadal Mbacke mi ngi wax nag sëriñ Alamin la ko bind su ay la wax nag kan moo bind lettre bi lettre bi nag maa ngi ko jëmee nag ci koo xam ne nii sëriñ Alamin Niang ñu gën koo xam nag ci sëriñ Alla Niang li waral lettre bi nag dama lay xamal ne nag sant yàlla bu baax a baax a nag laay def di la xamal ne nag maa ngi ci jàmm maa ngi ci aw yiw mën naa am nag yow itam nag yaa ngi bëgg a gis tax na itam nag mënatumaa lekk mënatumaa naan mbir moomu nag bi mu demee ba toll ma foofu ba nga xam ne ni itam mënatuma koo muñ ci laa na ne naa jël këyit wii nag ngir bind la ko ngir xamal la nag fi ma toll ci yaw ak fi ma nekk mën naa am nag su ma la ko bindee ba nga jot ci yëg-yëg bi ma doon yëg nag ci nameel gu ma la namm nag mën naa am soo gisee këyit wi nag dana wàcc ki la ko bind nag sab soppe la ku sell nag ak cofeel koo xam ne nii itam nag yàlla rek la yaakaar nag am lim bëgg lépp nag ñu koo xam nag ci Ahmadou Fadal ñu teewlu nag ñaareelu lettre nag bu Cheikh Mamadou ñang ngir cofeel nag akuk bëgg gum amoon nag ci jëmmu jooju innahu atammu salaamin wa askah min indi ubayd rabbihi almuntami insha allahu axiba rasmihi ilayka yaa seyqu aliyu ñang almaaruf bi alamin ñang mujibuhu anni walillahi alhamdu wa shukru fi xayrin wa aafiya wa laallaka kathalika am la maha anni lahu bi ruyatika wa shawqika la aqdiru shay'an la aklan wala shurban falamma intaha biha alxaalu ila mahallin la sabila li tasaburi sawattu hada albayaad taaliman li zalika wa laallahu bi mujaradi waxoonhi ilayka yutfiu ma biya min sidatil walahi wa nahwihi yi katabahu muhibbukal asafil bidaat arraji min allahi neel muraad ahmadul fadal ba tey nag cheikh mamadul fadal mbàkke bindaatoon na yeneen lettre nag sëriñ Alamin Ñang ndax nag ak kóllëre ak ku bëgg nag gu cheikh mamadul fadal mbàkke nag defoon jëmm ji nag di sëriñ Alamin Ñang ba tey nag ci relation yi sëriñ Alamin Ñang amoon ñu mën cee ràññee doomu cheikhul xadim bii ñuy wax cheikh mamadul bachir mbàkke ibnu sëriñ sëriñ Alamin Ñang lay mii meññ sëriñ cheikh mati lay soxna sëriñ Alamin Ñang bu tuddoon soxna mati lay ko tudde moom lañ ko joxoon mu wéy nag des nag ci dëkk boobu mu gor sanc fa nekk fa nag di yar di jàng ak di jàngale ak mbooloo mi koy yaakaar nag ngir xaadim rasuul di daaru ñang nekk nag ci wetu dëkkum maam cheikh anta mbàkke bii ñuy wax gaawaan di kër àlla foofu nag la nekk ba nim génnee àdduna ci atum doomu soxna faatim kebe ba ak sëriñ maali soxna ñang nag mi ngi génn àdduna ci feebar nag bu ko tëral ci dëkk boobu nag di dëkk nag bu mu goraloon boppam nekk fa ci dëkk boobu nag la génne àdduna ci atum 1919 ñu denc ko itam nag ci dëkk boobu taalibeem nag bu dëggal nekkoon itam nag ci ginnaawam di sëriñ maam Balla Sàmb nag moo ko taxawu moo ko jullee ñu jébbal ko boroomam nag ci dëkku boppam boobu nag di daaru ñang ñu gën koo xam ci kër àlla nekk nag ci wetu dëkku maam Cheikh Anta Mbàkke ñuy wax gaawaan waaye nag ñu wax leen nag génnuk àdduna sëriñ Alamin ñang nag lan mooy li ko waral feebar bi amoon nag ci atum 1919 di feebaru pes feebar boobu nag la sëriñ Alamin ñang nag génne àdduna waaye lu yéemee yéemee yéemee ak nag lu méttee méttee métti nag moo dal sëriñ Alamin Ñang nag ci atum 1919 ginnaaw moom bu mu génnee àdduna ci feebar boobu nag di feebaru pest ci dëkk boobu nag mu sañcoloon boppam di daaru ñang ñu gën koo xam ci kër àlla njabootam itam nag gu takkoo takku itam nag génnaale waat nañ àdduna itam nag ci at moomu ci feebar boobu nga xam ne itam moom moo ko génnee àdduna ndaxit lu tollu juróom-ñetti doomam muy ak njabootam gu mag ci génn àdduna sëriñ itam ci lañ génn àdduna ñoo bokk nag benn feebar bu leen jële àdduna muy feebaru pest boobu ca njaboot googu itam nag ñu mënoon caa ràññee kam faye woon seexul xadim ñu koy wax sëriñ mbàkke mati ñang kam faye woon maam ceerno ibrahima faati mbàkke ndaama daaru ñu koy wax sëriñ ceerno mati kam faye woon soxna aminata loomi waajuru cheikh mamadou moustapha mbàkke ak cheikh mamadou lamin baara mbàkke muy soxna aminata ñang kam faye woon soxna jaaratullaahi mi waajuru cheikhul xadim muy soxna maam jaara ñang kam faye woon cheikh mamadul basir ibnu sëriñ touba xaadim rasul muy cheikh mamadul basir ñang kam faye woon cheikh mamadul moustapha mbàkke ibnu sëriñ touba xaadim rasul xol di cheikh mamadul moustapha ñang kam faye woon cheikh mamadul faadal mbàkke moom sëriñ tuuba xaadim rasuul di cheikh mamadul faadal ñang ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ci njabootam ñoom ñëpp itam nag ci at moom di atum 1919 génn adduna ay soxnaam itam di ñeenti soxna yim dëkkoo woon ci at moom itam nag lañ génn adduna di atum ñu mën soxnaam si dëkkoo woon di soxna mati lay soxna wali mata mbay mën soxna ngóone boobu nag lañ génn àdduna di feebaru pes boobu ci at moom itam nag di atum 1919 bi sëriñ Xalimin Ñang génnee àdduna njaboot gi gépp itam nag ànd nañoo moom génn àdduna ci ginnaaw bu mbooloo moom mépp nag génnee àdduna di njabootu sëriñ Xalimin Ñang dëkk boobu itam nag di daaru ñang ñu gën koo xam ci kër àlla lii di administration bi fi nekkoon nag di état bu Sénégal dafa faroon itam nag dëkk boobu ndax feebar boobu fu duggoon nag di feebaru pes bi ba na itam nag dëkk boobu nag di ci daara ji di dongay sëriñ Xalamin Ñang donga yooyu nag ñu mën caa ràññee ku ñuy wax sëriñ Mor Koddu Faal sëriñ Maxtaar Sekk sëriñ Abdu Konte yi sëriñ Ngaari Si sëriñ Sayar Kebe ñoom nag dañoo dogu woon ne duutuñu demaat fenn ndax sëriñ Xalamin Ñang nii nag lañ yaakaaroon te gisatuñ nag sëriñ Xalamin Ñang ci tund woowu nag la ñuy des nag ba ni ñuy génnee àdduna bi sëriñ Xalamin Ñang génnee àdduna nag Seexul Xadiim woolu na sëriñ Maam Balla Sàmb di ko xamal ne itam nag njabootu sëriñ sëriñ tubaa xaadim rasul dem jëli njabootu sëriñ Alamin ñangi ci ñi fi desoon nag ci jamono jooju indil ko ku baax ki sëriñ tubaa xaadim rasul ci njaareem ñu mën cee ràññee sëriñ Ousmane ñang mën cee ràññee sëriñ Cheikh ñang sëriñ Ceerno Ngóone ñang soxna Anta ñang soxna Mareema ñang soxna Penda ñang soxna Maam Awa Busa ñang soxna Assu Gaawaan ñang soxna Màggat ñang ak soxna ñang ginnaaw ba sëriñ Balla Sàmb indilee njabootu sëriñ Alamin ñang googu nag ku baax ki sëriñ tubaa xaadim rasul seexul xaadim nag mi nga doon xamal njabootu sëriñ Alamin ñang man maay seen waajur man itam nag man maa leen war a taxawu loolu moo taxoon itam nag mu fob njabootu sëriñ Alamin Ñang googu tasaare leen nag ci njabootu boppam mu jël nag ku ñuy wax sëriñ Ousmane Ñang jox ko sëriñ Ndaam Abdourahmaan Lo ngir mu wéel am njàngam fob sëriñ Cheikh Ñang jox ko sëriñ Mor Halima Géey itam ngir mu wéel am njàngam fob soxna Anta Ñang ak soxna Awa Buso jébbal leen soxna Faati Sila Libaas miy waajuru soxna Muuminatu Mbàkke bintu Seexul Xadiim fob soxna Assu Gaawaan Ñang jébbal ko soxna May Jaxate miy waajuru sëriñ Moodu May woon booba itam fekk na ñenn ñi itam nag dem kër mu bàyyi leen nag ci kër yi ñu nekkoon sëriñ maam Balla Samb di ki nga xam ne nii moo nekkoon jëwriñu sëriñ Alamin Ñang moom nag dafa demoon nag ci dëkk bu ñuy wax sancub mbaabu ginnaaw ba mu demee ci sancub mbaabu nag nekk fa daa wéyal nag doon def li sëriñ Alamin Ñang nag doon def nag ci ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul matt mi nga xam ne nii sëriñ Alamin Ñang itam nag daana ko taxanal ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul moom sëriñ maam Balla Samb mii nag wéy itam nag di ko taxanal ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul mu mel ne dugg fii ginnaaw bi sëriñ maam Balla Sam mi nag wéyee nag di indi matt mi la am bis nag seexul xaddim nag gis matt mi bari lool ci kër gu mag gi muy laaj matt mi nag kan moo ko fi indi ñu di ko xamal ne nag maam Balla Samb taalibeb sëriñ Alamin ñang ba nag moo wéy nag di ko fi indi seexul xaddim nag doon xamal mag ñi di leen wax ne maam Balla Samb mii nag bu fi indi matt mi na ngeen ko xamal ne nag dama koo soxla ginnaaw bu sëriñ maam Balla Samb nag indee matt mi ba noppi lañ ko yëgale ko nag ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul nee na daf la soxla ginnaaw bu mu gisantee ku baax xaadim rasool ba noppi seexul xadim nag laaj na ko balla sàmb fan nga nekk mu di ko xamal ne nag maa ngi kër mbaabu seexul xadim nag doon ko xamal ne damal sancaat nag daaru ñangoog nag te toog fa kon lii moo indiwaat nag maam balla sàmb nag ca dëkk ba mu sancaat dëkk ba nag yeesalaat ko taalibéy sëriñ xàllamin ñang yu mag yi delsiwaat itim nag ca dëkk ba topp nag ci ginnaaw maam balla sàmb di ko xoole nag sëriñ xàllamin ñang ci biir taalibé yooyu nag ñu mënoon caa ràññee sëriñ mor koddu faal sëriñ maxtaar sekk sëriñ abdu kontey sëriñ ngaari si sëriñ am nag wéy nag yor nag ndonal sëriñ Alamin Ñang ba njabootuk sëriñ Alamin Ñang gi màgg ci nag la fi bàyyi ko moom sëriñ Maam Balla Samb ñu denc ko nag ca ron ja sëriñ Alamin Ñang ci dëkk boobu nag di kër àlla sëriñ Alamin Ñang nag ay xalifaam nii la tëddee li ko dale nag ci 1919 ba ci atum 1975 sëriñ Ousmane Ñang nag moo ko wuutu nekk nag ak xalifaam bu njëkk ñaareelu xalifa sëriñ Alamin Ñang mooy sëriñ Cheikh Ñang moo fi nekk nag ci atum 1975 ba ci atum 1987 liñ tudde nag doomu sëriñ Alamin Ñang yu góor yi nag jeex tàkk nag ci kaw suufa sët yi nag tàmbalee seen maam ji sët bi njëkk wuutu maamam mooy sëriñ Alamin Ñang di doomu sëriñ Cheikh ñan mi nekkoon ñaareelu xalifa sëriñ Alamin ñan moo fi nekk nag 87 ba nëgëni ñu koy ñaanal nag mu yàgg nag ci toogaayu maamam boobu di sëriñ Alamin Ñang ak mbooleem nag ñum séqal sëriñ Alamin ñan moo xam góor ak jigéen sëriñ Alamin ñan nag am na bis nag buñ koy fàttaliku ci liñ tudde ak màggal jabootuk sëriñ Alamin Ñang ñoo bayaloon Cheikh Mamadou Fadal Mbàkke toolub àllarba ginnaaw bu tool ba ñoree la sëriñ Ousmane Niang nag mi ci magoon dajale mbooleem njabootug sëriñ Alamin Niang gi ñu fab addiyee ji nag yit ko Cheikh Mamadou Fadal Mbàkke ginnaaw buñ ko indilee Cheikh Mamadou Fadal Mbàkke nag ba jox ko ko ñi ngi doon xamal nag Cheikh Mamadou Fadal Mbàkke di ko wax ne nag njabootug sëriñ Alamin Niang gi ñoo la bayal tool àllarba bii doon la ko ziyaare Cheikh Mamadou Fadal Mbàkke nag mi ngi leen doon xamal ne sëriñ Alamin Niang dafa bokk nag ci ñi nga xam ne ni seddu nañ ci ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul ab cëritim nag am na ko fi Seexul Xaadim nag cër bi mu joxe ginnaaw bu mu fi bàyyikoo nag sama mag ji cheikh mamadul moustapha mbàkke nag la ko dénkoon ginnaaw bi fi cheikh mamadul moustapha mbàkke bàyyikoo nag cër bi maa ko yor nag di ko joxe yéen itam nag sëriñ xàllamin ñang bi mu fi bàyyikoo cër bi itam nag yéen a ko yor cërub seexul xaddim nag bi mu waroon a jox sëriñ xàllamin ñang mi ngi woon ak man te gisuma leen woon bi ngeen ñëwee jël si danaa leen ko jox ci la ko njaboot gi nag doon xamal ne nag dañoo bëgg a wut bis boo xam ne nii nag fan ak juróom benn nag ci weeru rajab bis boobu itam nag ay ngëneel yu bare bare bari nag am na ko jël leen ko di ko màggal ginnaaw buñ jógee nag ci cheikh mamadul faadal mbàkke ba ñëw nag fiñ daloon di kër sëriñ Ousmane Bousso boobu nag sëriñ Ousmane Bousso moo nekk bëkk néegu cheikh mamadul faadal mbàkke suñu Ousmane Bousso nag mi ngi leen doon xamal ne cheikh mamadul faadal mbàkke da ci bis bi itam nag am na lum leen ci bàyyil ndax it nag na ngeen xam ne nag ci la feeñ jamono ñu jël bis nag di ko màggal nag ci dëkkub sëriñ Alamin ñang boobu di daaru ñang ñu gën koo xam ci kër àlla li ko dalee nag ci xilaaf ak ba ci xilaaf Daaf ak Serigne Cheikh Ñang sëtub Serigne Alamin Ñang bii nag di turandoom di Serigne Alla Ñang moo ko jëlee nag ci dëkk boobu nag di Daaru Ñang di kër Alla indi ko nag ci dëkk bu sell bii nag di Touba ci atum 1991 ci fi nga xam ne nii fi lañ féete di gaar bu ndaw lii mooy bisub Serigne Alamin Ñang ñuy ñaan ci jàmbaari Cheikhul Xadim ba yàlla nañu ko suñ borom fayal nag te yokk ay leeram te taas ñu ci barkeem te guddal nag fanu njabootam gim fi bàyyi lii di jafe-jafe réew mi itam nag yàlla ko suñ borom saafara ci darajay Cheikhul Xadim amiin Cheikhul Xadim amiin